Sénégal Khalifa rappeur man la suwaaje tous muy bóot bóore ñebe fii si Sénégal mën nga dindi yi coola di ñu liggéeyal te di xoola gëm naa ñu la yow Sénégal te wóolu naa ñu la yow Sénégal yow mi yaa ñu doya yaa ñu doya président yow mi yaa ñu doya Déthié waxoon naa ko ci programme bi nga xam ni def nañ ko ñu ñaan nañu yàlla bu ñu yàlla mayee ndam ñu jublu ci xëyu ndaw yi ku dugg biir Parcelles Assainies yàgg wër biir Sénégal xam ni xëyu ndaw yi c'est une priorité absolue nit nit nit boo ko bëggee dimbali boo bëggee muy dog buumu gàcce da fexe ba bu tolloo ci wutum xëy nga fexe ba auparavant encadré ko ci formation bi war encadré ko ci éducation bi war pour mu mën a am xëy te Sénégal jot na la majorité des jeunes à travers des projets yu jógee ci mbay mi des projets yu jógee ci industrialisation bi ñu mën a assurer à nos jeunes des emplois ndaxte lii xew nga xam ni ay décennies ñoo ngi koy dund mu metti ñu lool muy immigration clandestine bi dafa doon li nga xam ni il faut ñu xeex ko de façon sérieuse et ni koy xeexee mooy wutal xëy yi ndaw wutal ndaw yi xëy et fi ma jaar yëpp fi ma jaar yëpp fi ma jaar yëpp ñii tàllal loxo ñii ñëw di arrêté caravane bi di wax ñoom ñëpp loolu mooy seen jooy et je prends l'engagement ici que bu yàlla defee ma bénéficier seen confiance ngeen wooteel ma au soir du 24 mars 2024 ba yàlla jox ñu ndam li loolu daan ko def une priorité absolue